ومن احسن قولا ممن دعا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ba ca tegu mooy bul xeebal kenn problème am muskila dis ko xeeb lu mu tuuti tuuti tuuti li gën mooy gaaw koo saafara ndax kat mën ngaa xeeb loo xam ne danga naan lii day ab ab siis la mu mujj foofu nekk montagne yu mu daj mu kenn xamul nu mu toll ab siis bu ñu ko waxee mooy jànj bu tuuti jànj bu ndaw a ndaw a ndaw bu tuuti suuf su kolewu su jaxasoo la ay xorondoom ak ay yëf di dëkk ci biir mën nga koo gis xeeb ko mu xëy xëy nekk montagne moo xam ne day muur lépp problème noonu la mel day tàmbali nekk aw ferñeent soppi ko doon ak lakk goo xam ne day lakk lépp kon di su ko xeeb ba ca tegu mooy nangul nag ku góor gi ak jiiteem kër gi ñu wax xiwaamatu rajul ci këram kilifteefam kenn waru caa wàññi lu toll ne tarkatulaay su ndaw si moomoon adduna ak li ci biiram waa ji bu xëyee topp njaam di wut lum ndékkee wala lum añee teewut mooy kilifa ndaw si noonu la ko yàlla tere kilifteef googu nag saa bu ñu demee ba suufeele ko wala suufeel ko wala ñu doyadal ko loola ci lii màbb kër yi ci la bokk xam ngeen ne lii xew tey ñuy wax droit de la femme di tabax ay jigéen yoo xam ne la ñuy def ci seeni bopp mooy kër gi kenn yëlifu ko ñaara ko séq ñoo xam ne ay partenaire lañ kii daa moom lii kii moom lii loolu njaaxum gënu koo rëy lu bare bari luy luy sànku tey ak di yàqu ci ay njaboot ñàkk kilifteef moo ko waral kilifa mënta ñàkk ci kër suñ jekki woon jekki ni réew mi amatul njiit kenn ku ne yaay jiite sa bopp kenn ku nekk yaay xalaatal sa bopp loolu la neex nga def kon ndax defe ngeen ne dund gi dana dem fenn loo yor boo génnee bi keneen nangu ko léegi ëpp la doole te doo ci mën dara waaye nag dafa am kilifa yoo xam ne kii moo yore lii kii ma yor sécurité bi kii ba yor nangam kii ba yor nangam kenn ku ne jox ko sa cër su ko defee dara du sooxe waaye lu dul loolu nag musiba day am mooy su njiit amatul rek dund gi fawda lay nekk anarchie lay nekk boo xam ne kenn du xam nus koy lijjantee nangu njuumte nangu njuumte mooy tomb ba ca tegu amul ak xëccoo wala ŋaayoo wala xuloo buy am te du daa am kenn ku juum benn nit ay laaj lu dul àqam wala mu yor àq jàmbur nangu koo joxe loolu rekk la ki juum nag ngeen waxtaan ba mu yëg ne moo juum mu ñëw ne ah jéggal ma man juum naa lu mel nii moom dootuma dal muy ku góor ki muy ku jigéen ki kooku mooy li gën a gaaw ci suur problème li yées ci problème mooy dem ba yëg ne jóom nga ba noppi daal di gàddu sa bopp ne xalaatuma jéggalu nangam ak nangam ak nangam mu ne la yow yaa def nangam nga ne ko yow defoon nga nangam bëgg démb di ko seetal leneen njuumte moom it loola du saafara kon al i'tiraafu bil xata nangu ne dangaa jóom boole ko ak al i'tizaar muy jéggalu loolu mooy jëmbat dundub ñaari way dencante ñàkk a nay ci ku góor gi ci yi nga xam ne yu mënta ñàkk ci dund gi la loola lu mënta ñàkk la nay nag buñ koy wax mooy la la war defoo ko te fekk mën nga ko defoo ko ba mu mat te fekk mën nga ko soo ko mënul nag da ngay def la tolloog la nga man borom bi ne li yunfiq du saatin min saati ki yàlla jox lu yaatu na def lu tolloog moom wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu llah ki nga xam ne yàlla dafa xatal wërsëgam it na joxe lu tolloog lim am su ko defee mu bañ a nëbbu njabootam su xéewal tuuroo ñu yëg ne tuuru na ñu yëg ko bu baax ci seenu dundin su tuuru wutit nag ñu xam wax leen ko su nekkee ci jafe-jafe it woo leen ñu ñëw mu ne leen kat jafe-jafe am na nga xam ne su wàññee lam doon def ñu xam ne ah lii kat daa am lu ko waral kon nay mooy li la war defoo ko ba mu mat te fekk mën nga ko waaye bëgguñu it nag yàq wane ne rek am naa tey kon damay def ba def lu ma mënut su ko defee bu ëllëgee nga delluwaat yor sa loxoy kese loolu dund gi du noonu borom bi tabaraka wa taala daf ne bul bul tàllal say loxo ne jël leen waaye bul ko def ci say loos itam bul def sa loxo ci sa loos mooy bul nëb ba nga xam ne doo jox kenn dara waaye bul tàllal ne jël leen yëf yaa bokk bu mu neex nga ñoo jël kon ëppal baaxut waaye digg doomu mooy baax wattandikul roy ñeneen ñi ak jëfandikoo xiyaas loolu jigéen ñi lay faral di dal léeg-léeg xool nga daal kër goo xam ne ñoom seen kër nii la mel nangam lañ fay dunde nangam lañ ko organiser boo fa demee saal ba lee fa nekk booy dugg ci kër ga nangam ngay gis nga ne lu tax man sama kër melul ne kër diw loola njuumte lay indi sunu borom tabaraka wa taala ni mu séddalee nit ñi ñii gudd ñii gàtt ñii di gudd fan ñii di gàttu fan ñii mel nii ñii mel ne ñii dëkk fii ñii dëkk fee wërsëg yi noonu la ko defee yii doon wërsëg yu yaatu yi doon wërsëg yu xam kon boo nekkee nit li ngay xool mooy ak góorgóorloom ak jomam ak li muy am ndax mi ngi koy indi ci kër gi waaye fu mu toll fu ne rek rafetlul loola bul sànni say bët nag mu jëm ci ñeneen ñoo xam ne ña ngay dund la ñuy dund te xamoo lu mu doon léeg-léeg nga xool kër gi ci bitti ni ñii moom day mel ne jannaatun tajri min tahtiha al anhaar booy xool da nga naan lii moom àjjana la joo xam ne dex yaay daw ci suuf te leen ne ci biir nag kenn xamu ko kenn xamu ko wax nañ ne soxna daa ñëw ci wala waaja daa ñëw ci ak kilifa di ko jàmbat mettitu këram ak soxnaam lim pànkeeg lim koy wan ak mu ne ko ñëwal danaa la danaa la def wan loo xam ne boo ko gisee da nga muñ woo ko ba ci néegu fanaanoom mu ne ko làqul fee mu làqu bi waxtu tëddam jotee bi mu agsee moom kilifa googu yi soxna si fa war a ñëw bi mu agsee la mu jëkk a def mooy foq kaala ga sànni daal di koy pes ne ko bu bëccëgee ngay sugg sugg nag ñu defee ne kilifa nga te xam ne yow nangam ak nangam ak nangam mu sëgg rek ne yang soxna si di xas di kull di di wéq di dóor ba ba mu sonn mu ne ko ana nga waa ji ne ko maa ngi nii mu ne ko waaw mën ngaa dem génn ba mu jógee foofa nag mu xam ne moom wax dëgg yàlla ak soxnaam nu mu mën a mel àggul fii loolu daal di doon saafara ci moom kon kër ga ngay siyeen borom bi tabaraka wa taala ne wala tamuddanna aynayka ila ma mattaana bihi azwajan minhum zahrata alxayaati dunia li naftinahum fii wala risqu rabbika xayrun wa abqa borom bi nee na bul sànni say bët ci kër jàmbur ngir ay taarub àdduna rek booy gis nii ci kaw te fekk fitnay àddunaa nga ca suuf maanaam taarub àdduna ci kaw daal laloog ak fitnay àdduna ca suuf ñoo ànd fitna jooja nag lu ne mën na ko doon yàlla moo xam lu muy doon kon daal yow ñaanal sa borom mu wërsëgal la bis bu nekk bu ndékki jotee nga am loo ndékkee bu añ jotee nga am loo añ bu reer jotee nga am loo boo defee loolu ànd ak sa wér-gi-yaram di xëy di liggéey kenn gënu laa taxe ci kaw suuf yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne xëy na ci këram am lu mu dundee ca bis boobee bis ba rek la wax na waaye ànd ak dalu xelam ak sécurité bi nekk di jaamu borom nee na kooku ku ko gën a texe amul ci kaw suuf amul ci kaw suuf kon ci ak gàttal daal mooy ñaari tomb yooyu muy tomb bu njëkk bi nit ki fan lay jaar ba takk soxna ak ba takkee soxna ba noppi tomb yii nga xam ne moom lañ jàngat ni ma ko waxee woon jëmul ci wàllu fiq waaye wàllu social ak jëflante ci la jëm yooyu mën naa doon ndimbal ci gaarante nag lu bare bari ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci biir kër yi waaye ànd ak loolu du doy lu dul ne war nañu def ay séminaire yoo xam ne li koy tax a jóg mooy jàngal nit ñi kër ci boppam nañ ko yore ndax nit ñi jàngee yépp noonu la ñu war a jàngee loolu te yor kër du du lu yomb de lu jafe la Ibnu Sina ci téereem bi ñuy wax siyaasa day wax ne ku mën a boole ñaari jigéen ci genn kër genn kër nga boole leen ko di leen yor am at te deret tuuru wut bët fuqul bopp tojul nee na mën ngaa yorum réew téere ba téere politique la maanaam day wax ne képp ku mel noonu mën ngaa yorum réew ndax sàmm sàmm ay nit ñu ne ci suuf nga nekk responsable mooy li gën a jafe moo tax dañuy wax ne bokk na ci xikma sunu borom tabaraka wa taala yonentam yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn yonent bu musta sàmm ak jub ñu ne ko ah yow sax doon nga sàmm mu ne ok doon naa sàmmal waa Màkka ñu di ma fay ci ay jamono lu tax yonent yi di sàmm ak jur mooy dafa am lu leen yàlla na sàmmloo ca kanam xam nga ak jur lu amut xel la ku ko mën a sàmm ba régler ko ba boo taxawee ne bar wala nga ne kor ñu ñëw boo tegee lii ñu xam ne lii la boo jëmee fii boo doxee ñu topp ci yow te ak jur la gu amut xel nga mën leen a sàmm ba teg leen ci yoon woowu kooku bis boo demee bañ na la yaay yonent bi kat yaa war a sàmm nit ñi su boobaa dana gën a woyof ndax sàmm ko amum xel moo gën a yomb sàmm koo xam ne ko amul xel la kon loolu mooy xikma bi taxoon moo tax mukk bul woyofal lu mel noonu ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq waxtu wi mat na ba tegal fukki minit su ko defee kon ñu delloo kàddu gi Cheikh Aliou Badab wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain
jazakumullahu xayran xam naa ñun ñëpp noo ko déggandoo wax ji mat na doy na sëkk leer na nañ tey dund gi ñaari rek moo ko seq ki denc ak ki dencagul ci góor ak ci jigéen kenn ku ne yaa ngay ñaan denc wala bu dee ku denc ba noppi ma ngay ñaan sëy bu wéy lii Cheikh bi wax la sakkane bu ko dégg mu ne da ngay gis ne réalité ndax réew yu bari waxuma la réew yi sax waaye dëkk yu bari boo xoolee sëy yi fas dañuy wax ne balaa am at cinquante pour cent yi day day tas te li ko waral mooy li mu junj léegi bëgg lu am bëgg lu mënta nekk moo ko indi damay waxtaan ak sama benn xarit ko di ma wax benn bis mu ne ma man de bu mu récolté ne jaay bi dagan na sama ñetti soxna yi dama leen yóbbu ca taral nga jaay leen jël xaalis bi def ko ci saa xool lekk moom jeex na xam nga kon kooku la muy séentu la séentu la muy séentu la amul te fekk la muy séentu la ko kee am seex bi wax léegi boo xoolee da ko ci gis mooy ñooñu ay njaboot la yor kay dañ ko war a topp loolu la mën a dugg am moo war a wax loolu kon la waxtaan bi ñuy waxtaan bu war a yaatu la bu waree si def la jafe-jafe yu sëy bari na lool lool lool lool lool ci suñu réew mii ba tax na sax boo xoolee ñu baree bari ñu war a denc nangu ñoo denc ndax la ñu bëgg jàpp nañ ne daanaka mënta am te fekk loolu it erreur bu mag kon boo xamee mbir bi ni mu tëddee loolu dana woyofal ci nga mën a tànn soxna da nga ko war a tànne waaye su fekkente ne xamoo ko nag mën ngaa juum bi ngay tànn boo demee ba ci biir it la nga bëggoon te mënta am loolu day feeñ te bu feeñee sëy bi day tas comme noonu nag xam naa kon dañuy julli suñu noppee wala ñuy def laaj yi noppee kon xam naa seeka naa ñu ñëw ci laaj yi ci kii bokk la moo xam ne moom nee na ko ko billaa ko dëggal ak yàlla mu ne léegi yenn ci mbokk yi di xarit yi di wax ak yéen ñi ci ne li ñuy wax tudd li ñuy wax tudd bindaa la ndax loolu wér am na mooy gàtt tudd ñoom dañuy wax ne bindaa la nee na loolu wér kii ba tey jigéen la ñoo xam ne mu ne dafa am am na borom kër waaye li mu jiital mooy wut alal moom la gën a fonk moom la jiital ci li mu war a dundee ak borom kër kon xam naa laaj bari na waaye comme waxtu bi jot na ñu doy loolu ci laaj bi incha allah
waaw su jeexee su jeexee nga posé waat mën nga continuer di xool ci boppam. alhamdulilah ñaari soxna yooyu nga xam ne daa wax ne ñaari soxnaam lañ te ñi ngi góorgóorlu bay muuru ñi ngi leen di gën a soññ ci loolu di leen gën a ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu dolli leen tawfiq te dolli ko képp koo xam ne day góorgóorlu ci diineem waaye nag seenu génn seen kër di dem ci yeneen kër nag ngir di seetaani télévision loolu moom nañ ko bàyyi loola loolu du jub du lu yàlla gërëm loo nit ki su fekkee jaamu yàlla la bu xas jël engagement ngir jaamu yàlla ci alquran ak sunna day contrôler boppam ci léppam su bëtam di xippi lan lay xool suy ubbi gémmiñam lan lay wax suy seqi ab jéegoom fan la jëm suy tàllal loxoom loxo boobu lan lay def contrôle boobu muy contrôler boppam nga xam ne fu mu toll fu nekk da koy xalaat wërta am ci ak dundam benn espace boo xam ne da koy def mu neen benn espace boo xam ne da koy def mu neen maanaam su jógoon di dem rek te jubluwu ca dara mu ngi perte waxtu te du ca jariñu waaye su fekkee ne li neen dafa xajul ci dundu jullit naka nag loo xam ne moom bàkkaar da ciy jóge te wóor na ko ne déplacement boobu mu def ngir dem di seetaani ab télé kooku jaamu ji yàlla yëkkatiwu ko télé ba bu fa demee bay seetaan it li ëpp ci télé yi ñuy seetaan lañ fay seetaan du doon ak topp yàlla lu ci bari ak mooy yàlla nag lay doon kon lu mel noonu daal dafa doon loo xam ne lu jar tënk la su fekkee nag dañu maa wax ne daa am programme yu baax yoo xam ne yooyu diine la yu mat a seetaan la yu mat a def li nangam nangam la dañuy wax ne lu mel noonu nañ ko amal ci seen kër di ko fa seetaan waaye buñ déplacé dugg ci kër jàmbur di ko fa seetaan te jàpp naa ne fii mu nekk nii ku bëgg a seetaan loo xam ne ci diine la jëm dëgg dëgg dëgg doo ko seetaane ji ci télé yi waaye ci biir internet beeg youtube yeeg yu mel noonu lépp loo soxla ci ay conférence diine ak ay xutba ak loo xam ne lu am njariñ ci sa dund la mën nga ko yor ci sa portable bi di ko seetaan te doo ci seetante ab jéego jëm fenn kon loolu lañ leen di digal di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu doon leen tawfiq ndax ngénte biddaa la déedéet du biddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ku am doom na nga ko defal aqiqa aqiqa mooy nga rayal ko ab gàtt wat ko rayal ko ab gàtt wat ko su fekkee jigéen la bu dee góor nga rayal ko ñaari gàtt wat ko su fekkee ne mën nga ko soo ko mënul it nga rey benn kii mu ne dafa nekk ak jëkkëram waaye alal la jiital ci lépp loola it njuumte la ndax alal moom du mooy lépp li am solo ci nit ki mooy teraanga ak doylu maanaam nit ki munta am ci alali àdduna lu ko doy li ëpp sa dund li ëpp li nga aajowoo yow xamal ne keneen a ko moom moo tax dañuy wax ne li ëpp ci nit ñi léegi dañuy xëyal ñeneen di leen gontal bi nga xëyee di jëw nit di ko xas di wax ci moom wax ju ñaaw kooka nga xëyal moom ngay gontal maanaam la ngay am ci ay tuyaaba ma ngi koy fab te boo jeexalee tuyaaba ñu ngi fab bàkkaaram di la defal say balance bi nga xëyee di fàggu ji alal ba fàttee jaamu yàlla di dajale alal jooju muy bari ngay dajale di dajale dajale xamal ne ña lay doon ñooña ngay xëyal di leen gontal ba noppi fàtte sa bopp nag kon soxna si na delloo siwaat boppam xam ne alali àdduna du mooy lépp ab taar la nag lu ma ne sa jariñoo la tawfiq la it nag su fekkee ne dañ koo def fi sabilillah loolu moo tax ni'mal maalu saalix li rajuli saalix alal ju sell ju lew su àndeek nit ku baax kooku tawfiq la lu baax la waaye nag kay mel noonu du jël alal ji def ko ci xol bi waaye ci loxo bi lay nekk saa bu gisee fu baax fu mu ko war a def mu def ko foofa kon bul jël alal mu doon lépp ku ko def da nga dem ba jëmmi jamono nga xam ne li nga defoon muy lépp nekkate du dara ndax fii nga koy bàyyi boo xooloon tey ñi nga xam ne ay milliardaire lañu woon ci dollar biñ leen suulee nga romb seen bàmmeel ya ay bant ak ay xeer ak ay yëf yëfaan ak yu mel noonu nga fay fekk seen alal yooyu rapidement day toxu dem ci keneen koo xam ne fàgguwu ko woon àdduna lu ñàkk solo la mbokki jullit lu ñàkk a ñàkk a ñàkk solo la da ngay toog ba mu yàgg nga jékki-jékki dem dara du soppi ko sa montar bi nga takkoon sax du taxaw day continuer dox keneen yi jël takk rek mu dem kon ki jël alali àdduna def ko muy léppam kooku moom nekkul ci dara jaamu yàlla ak wéetal ko ak jaar ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy dara yàlla na ko yàlla defal waaw
yow yeneen laaj yi muy kii lay laaj mu ne jafe-jafe yi nga xam ne problème yi dafa ci diggante jigéen ñi sëy ci biir kër yi ak gorom muy yaay borom këram mu ne lan nga jàpp ne ak laabiir la koy laabiir bu jëm ci problème yooyu xew nu mu koy réglé loolu mooy benn beneen bi ci topp mu ne lan ngay laabiire shabaab yi maanaam xale yu góor yi nga xam ne ay jullit lañ ci jamono ji nga xam ne yàqu daf cee tasaaroo lool rawatina nag lu jëm ci màcc waa wàllu màndiyaat yi mu ne ñooñu lan nga leen di laabiire ak yan orientation nga leen di jox ñetteelu laaj bi mu ne kii waxambaane la woo xam ne yaayam dafa sàkk ci moom mu takk soxna ci benn néeg te ñooñu gërëmul seen i jikko muy laaj nag moom loolu lu cay fekk maanaam xam na ne ñooñu moom seen i jikko loolu jikko yooyu gërëm muy laaj ba xam loolu nan lay def moom moom
am na beneen ñett boobu
xëy diggante problème yi am ci diggante jigéen ji ak gorom kii sëy ci kër borom këram ak yaayi borom këram wala baayu borom këram lu gën a bari sax yaayi borom këram lay faral di toog saafara ko euh, day responsabilité ñëpp moo tax kenn ku nekk dana am lu jëm ci yow ci ay kàddu jëmmi soxna si ñëw sëy si ci boppam mu xam li ko indi ci kër gi sëy si jaamu si yàlla la def si lu la yàlla digal la nga fas bi yéene nekk ak njub te bëggoo dara yàqal la mu bokk ci li la mën a yàqal nag ñi ngay dundal su fekkee ne jëflante woo ak ñoom ci jikko yu rafet wala nga mere leen ba tax nga soppi sa jikko joo xam ne melul woon noonu loolu daf lay yàqal moo tax sa yaayi borom kër ci li ma waxoon léegi rek ci lay dellu si mooy jàppe ko ne sa yaay ja nga bàyyi ci kër gi loolu soo ko defee ak réeroo du dox seen diggante yow mii di yaayi borom kër bi yow itam na am taxawaay boo xam ne moom nga war a am kilifa nga boo xam ne dangaa yor sa ñaari doom yoo xam ne ñoo bokk di si jàppal ne xale bu jigéen bii bàyyi këri waajuram ñëw dëkk si ci sa kër yàgg say doom sa doom ju jigéen day def noonu dem ca yeneeni kër loo bëggalul sa doom ju jigéen joojee fa muy sëy bul ko bëggal doomi jàmbur ji ñëw ci sa kër kon rafetalu sa jikko te jàpp ne sa doom moo ne ci sa kanam yow borom kër bi nekk ci diggante ñaar ñooñu itam dafa am lu la war mooy xàq yaay dafa am birrul waalidayni daf laa war rafetal jëme ci sa waajur wu jigéen ak waajur wu jigéen bu góor lislaam moo la ko sant waaye sa soxna nag sa responsabilité la boo xam dañ la koy laaj ëllëg moo tax faaw nga équilibre nag ci diggante ñaar ñooñu xam ne ay àq yu bokkut lañ kii jox ko àqam kii nga jox ko àqam waaye bu leen def ñi doon ay wujj ñoom ñaar léeg-léeg jëfiinu ku góor ki mooy tax ñoom ñaar ñiy wujje du ñu ñaari soxna waaye kee yaay la dafa am loo xam ne moom la soxla ci ci itte woo ko toog ak moom di waxtaan ak moom mu aajo woo dara nga def ko aajo jëndi garab nga dem jëndali ay garab def nangam yu mel noonu bokkul ak kii nga xam ne moom dafa am leneen lu ngeen séq loo xam ne daa bàyyi këri waajuram ñëw dëkk foofu yeneen i itte la aajo woo yoo xam ne bokkul ak itte waajur bi bul ne mukk su ma xottilee sama soxna faaw ma xottil sama yaay sa yaay bu la neexee mën nga ko xottil nam la neexee waaye bul geesoogun soxna si xamal ne lii mooy jamono yi ma bëggee xottilee soxna si boo jekkee ba jëmmi jamono nga xottil yaay ji boo jëndalee kii dara bàyyi ba mu yàgg nga jëndal ki ci des waaye boo dee ñëw di indi ah lii kat sama yaay yow yaa ko moom lii kat yow soxna si li ngay def ci seen i bopp mooy ñoom ñaar ay wujj li yaay jaa ngay xool lu tax mu jox ko couleur bee te joxuma bii yaa ngay xool moom itam lu tax kon góor gi am na foofu responsabilité équilibre ci seen diggante ñoom ñaar ba du leen kereel ak xëccoo ñoom ñaar te kenn ku nekk mu jéem a góorgóorlu ba jox la sa wuj sa sa wàll te bu ay ñagas-ñagas amee itam mu bañ a wëlbatiku faral yaayam carrément fàddiku koo xam ne doomi jàmbur la wala mu ñëw faral soxnaam daal di fàddiku yaayam ñaar yooyu lenn waru ci am daa war a doon koo xam ne ab régulateur la boo xam ne dafay régler ñaar yëpp bu wéeteeg yaayam waxtaan ak moom kii nangam ak nangam wax ju dal yoo xam ne dana ko delloo si bu wéeteeg soxnaam moom itam waxtaan ak moom wax ju dal wan ko ko kii sama yaay la mënoo maa bëgg bañ ko mënoo def nii nangam nangam wax man su ko dee mbir mi dana réglé kon daal ñetti responsabilité yoo xam ne ndaw si am na ci yaay ji am na ci moom ku góor gi itam am na ci responsabilité am maa nag ndaw ñi ak bëgguk alal ak yàqute gu bari gi mooy liñ doon wax léegi nii rek mooy li ma daaneele sànq ci soxna si doon wax ne alal la jiital ñi di ko xamal ne alali àdduna du caagi ni mooy lépp boobu laaj day mel ne tontu nañ ko ki nga xam ne dafa bëgg a takk ci yaayam dafa bëgg mu takk ci askan woo xam ne gërëmloo wuñ leen bu mu doyloo rek ne askan woowu gërëmloo wuñ leen wala kër googu gërëmloo wuñu leen waaye na xool ndaw si ci boppam ndax moom kuñ gërëmloo la wala déet ndax kër gi kët mën nañoo siiwee leneen. ba noppi ndaw si melul noona moom yuxrijul xayya min al mayit wa yuxrijul mayita min al xay fu baaxut léeg-léeg lu baax sax fa fu baax it léeg-léeg lu bon sax fa moo tax bul atte nit ki ca kër gëm dëkk bu ko atte ca askan wam bokk waaye xool ko moom ci boppam bu dee gis nga ci ayib ju tax nga bañ koo takk kon bul ko takk te wax nag ka bëgg nga takk ko nee ko kii kat nangam ak nangam ak nangam moo tax mënuma koo takk naam
nga kii moom it dafay laaj mu ne dafa fas soxnaam di ko fasee ñoom ñaari fan mu dem ñu ne ko dagal yow ni de amatul beneen borom def ba tàggoo moom loolu mooy laaj boobu laaj jël laaj ñaari bi mu ne ndax salaam si xaar mënees na koo mënees na wut ngem
nee na dañ ko wax ni ko lu mel ne koo xam ne dafa nekk ci bitim réew téléphoné la yow bu nekk Sénégal bi misaal ne la maa ngi lay doon wax salaatu istifaara ndax maa ngi lay doon soxla nga wut ko ndax loolu mën naa nekk wala déet ñetteelu laaj bi mu ne ki nga xam ne dafa dem ba gis ne soxnaam da koy jabar ki nga xam ne dafa dem ba gis ne moom soxnaam dañ koy def ak jabar mu ne kooku nan la war a def
waaw laaj bu njëkk bi kooku dafay wax ne dafa fase soxnaam ñi woon ko ne da nga koo fase ñetti yoon kon mënatoo koo takk mënatoo te dellu si lu dul gannaaw bu mu dafay baax da saw ci gannaaw bu mu demee sëyi keneen dellu si waat moom mu jàpp ne fase wu ko ñetti fase ñu xam ne jëmmi fase ci boppam day dugg ci wàllu li ñu tudde alqada maanaam acte bokkul ak fatwa fatwa da ngay ñëw ci borom xam-xam bi nga laaj ko rek mu tontu li lii di atte bi nangam a nangam lii nangam a nangam la atte nag boo ñëwee kii juge ci boppam balaa génn jugement am ne lii nii la wala nii la day enquête ñëpp ba xam li xew dëgg dëgg dëgg lan la kii fatwa nag mën na ne mbir mi su fekkee nii la de kon nii la su fekkee nii la nii la léegi werante nañ nee nañ waa ji da ngaa fase ñett moom mu ne man fase wu ma ñett benn laa fase wala ñaar laa fase foofu la ñuy soxlaa ay seede kan moo témoin ñetti passé yim passé su ko defee bu boobaa nañu ànd dem ca boroom xam-xam ba wala ca imaam ba wala ca centre islamique ba ñi bokk toog ca boroom xam-xam ya nekk foofee ñu déglu leen ana ñi fekkee ne waa ji dafa fase soxnaam ñetti passé ñu ne noo ngi nii suñ matee ñaari góor yoo xam ne ñu maandu lañ yu mat ay seede ñu laaj leen lan la wax ñu leen di laaj nag kenn par kenn lañ leen di laaj foo xam ne ka ca des fekkewu ko ñu laaj ko lu mu wax su waxee lam dégg moom ñi woo ka ca des mu dikk wax lu dëppoo ak loola te yëgoowuñ ñoom ñaar ñu xam ne kon kii wax na dëgg su kii waxee lii nag kee ñëw wax leneen lu bokkut ak loola ñu xam ne kon ñoom ñaar dañoo bëgg a xañ waa ji soxnaam waaye li ñuy wax du dëgg loolu nag atte moo koy def kon foofu duñu wax ne passé ma tas na wala tasut waaye li ñuy jëkk a gëstu mooy ndax ñetti passé am na wala amul su wéree ne ñetti passé am na daal bala koo mën a takkati ndaw si moom liibar na day dem su fekkee dem na ba nit labat si ko ba takk ko ba mu sëy ak moom ba yàlla dogal passé xawaat seen diggante ba mu liibaraat waa ji su ko bëggee takkaat comme ñëpp bu ñëwee ñu bëgg a àndaat bu ko bu ko ñaanee ñu mën ko ko mayaat nañ ko ko may woon bu njëkk su boobaa mënee sa ko ko may te du wàññi dara waaye faaw ñu nag ñu dem seeti koo xam ne moo leen di àtte su fekkee nag amul benn seedeel dañoo doy dañ ne ko rek yow fase nga ko ñetti passé waaye amut ay seede su ko defee lam wax mooy dëgër nag su boobaa moom ginnaaw moo yore passé mi te nee na benn yoon laa ko passé wala ñaari yoon su boobaa lam wax ca la ñuy sukkandiku ba noppi bàyyi koog yàlla nag ndax moom xam na lam def. bu ne woon benn laa def te fekk wóor na ko ne ñett la digganteem ak yàlla na xam ne yoratul jabar moo xam nag digganteem ak diineem kii àtte ci kaw lay àtte waaye la ca biir nit ka digganteem ak boroomam la ndax manees naa istixaaraloo nit waaw su fekkee nit ki lott na ci munu ko munu ko kon mën na ko defloo nit ndax ak ñaan la te ñaan lu manees na koo def waaye nag ñi xam ne loolu war te yàgg listixaara des ko war a jàng jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhu nee na kaana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yuallimuna listixaarata kama yuallimuna suurata min alquran nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam daf nu daan jàngal listixaara comme ni mu nuy jàngale alquran kon nag loolu war a si sàggat des ko war a jàngal gone yi ci kër yi di ko jàngale ci daara yi di ko jàngale ci école yi fexe ba gone yi mën a mën istixaara comme ni ñuy taree alquran ñu mën a tare noonu listixaara ngir ñu mën koo def waaye magum jëm mu ne léegi ne mënumaa istixaara damaa bëgg ñu defal ma ko loolu moom daanaka moom di wax naan mëkkul mu faatee ñoo xooyam rek kon góorgóorlu ci loolu ba man ko baax na ki nga xam ne daa dem ba mu wóor ko ne soxnaam daf koy jabar jabar moom musiba la ndax jëmmi jabar ci boppam rek jëmmi jabar ci boppam kéefar la waxuma la nag la ca mën a tegu ci ay musiba ci yàq diggante ay doomi aadama moo tax kooku lañ koy dénk foofu mooy na na waxtaan ak soxnaam soosu yi su fekkee am na ay firnde yu wóor ci ne day def lu mel noonu na ko teg mu toog mu won ko lu koy won ne moom mii xam na li muy def te wóor na ko mu jël ci moom ay garanti ne loolu bàyyi na ko te duutu ko def mukk te duutu ko xalaat mu continuer di ko contrôler won ko it ne ko foo ko defee ti foofu la diggante bi jeexe ba noppi continuer di ko contrôler su ko defee su ko defatee rek mu wàcc ko loola mooy li wér parce que kenn du ànd ak ku mel noonu nekk ci biir kër ku gëm loolu sax dund ak moom ci biir kër wóorut waxuma la mu di ko def nag moo tax faw moom génn ca rek fi saasi génn ca fa saasa wala daal di tàggoo fa saasa loolu moo moo ci yoon wallahu aalam
kii boobu ne laaj laaj xamaas jënd na mbooloo bi waaye laaj bi jël la ndax bare na ñu koy faral di laaj te mooy nga xam ne nit daf koy jaay loolu terrain ci misaal ne ko léegi un million laa koy jaayee léegi soo ca tegee dara yaa ko moom wala soo ko ko loolu da ko ne boo gisee un million rek nee na mu dem jaay ko ndax da cay topp dana ko sañee lekk wala léegi ñaareelu laaj bi mu ne kii dafa takk soxna dañ ko takkee mu bëgg ko yóbbu ja ay woy juróom maanaam am na lay bàyyi ak na jabar ko ko yóbbu foofu nee na ndaw si ne ko déedéet damay wutal appartement wala sëy yam mu ne kooku lan la war a ñett ñetteelu laaj bi mooy ndax dana dagan ci jigéen ji nga xam ne daa gis ne borom këram dafa koy gënale ak ay wujjam ndax dana mën a sukkandiku ci loolu ñaan ko
ñaan daal doom alhamdulilah euh, ki nga xam ne dañ koy jaayloo jaayloo gi mën naa am ay tëddiin ndax koy lay jaayloo moom am na lu mu la war a fay bu ko neexee mu ne ko boo ma jaayalee day prix bi nangam la waaye danaa la ci jox nangam 5 pour cent yi wala 2 pour cent wala 3 pour cent luñ d'accord mu dem jaayale ko bu ko neexee mu ne ko jaayale ma lii 1 million man loolu laa ci soxla soo ko mën a jaay ci lu ëpp loola lu ca tegu yaa moom waaye man sama 1 million dama koy jël ba mu mat sëkk koo ko dem jaay lu ca tegu mu jël loola dara du ca nekk bu boobaa lañ dul bëgg daal mooy mu yëkkati ko nag yëkkati goo xam ne dana lor kiy jaaylu waaye dana lor ñiy jënd itam. lor gi kiy jaay lu mooy yëkkati ko ci prix boo xam ne du gaaw a jaar muy gis nit ñi di ko fay la ca waaj a soxla ba noppi mu lànk bañ koo jaay mën a toog at ngir bëgg lu gën a bari su boobaa mi ngi tooñ te ma ngi cay am bàkkaar wala mu yëkkati ko ba àggale ko foo xam ne ñey jënd ñoom ña nga cay loru ñoom itam su boobaa loola du jaaru soxna si bañ ne du dund ak ñaari waajuri ku góor gi loolu ñaari njuumte moo koy indi loo xam ne ci njëlbeen ga la sëy dafa war a am ay charte su fekkee ne am na lenn loo xemmem lu wuute ak urf wala li ñu tuddee aada am na looy xalaat loo xam ne bokkul ak ni ko société bi mii ne loolu da ngeen koy waxante ca teel ñëw na bëgg koo takk mu ne ko ah d'accord naa ci nga takk ma waaye man di dëgg may wutal sama këru bopp wala sama appartement bopp wala sama néegu bopp moo xam na mu ko bëggee su waaj a d'accord ca loolu mu dugg ci su fekkee ni moom wóor na ko ne lu mel noonu baaxut ci moom arrangé wu ko mu bàyyi mu ne ko ko kupp dem seeti keneen ginnaaw moom ku dëkk ak ay waajuram la bëgg na dem seet ba gis ku ne ko d'accord na ma dund ak say waajur mu door a takk kooka waaye liy faral di am ci njuum tey mooy bañ a def benn charte waxante wu leen ci dara ñu takk ba àggal nga de ko kaay ma yóbbu la sama këri waajur man la man du ma nekk foofu nag ma wutal sama appartement boobu su boobaa njuumte li yéen ñaar ñëpp yéen a ko def ndax la nga bëgg yow waroon nga ko ko wax teel ne ko man kat su ma la takkee ci sama yaay ngay nekk moom it la mu bëgg waroon na la ko wax wan la ne man du ma mën a nekk ak sa yaay ak sa baay saa bu ngeen duggee ba agsi foofu nag yéen a ngi ci jafe-jafe boo xam ne yéwénoo dong ngeen mën a def jéem a waxtaan ba juboo ci dara waaye du jaadu sëy ba nag di tas ci lu mel noonu te fekk warees na ko mën a lijjanti ba tegaat ko ci tegaat ko ci aw yoon ndax lay jaadu mooy ginnaaw la ñu miin ci société ba ngeen nekk mooy nit ki bu tekkee soxna da koy yóbbu ci ay waajuram nga xam ne loolu la société ba miin su ca ndaw sa waxul dara dañuy jàpp ne moom daa wéy rek ca lañ miin kon du jaadu mu dem ba ca biir muy génn ca loola moo tax jigéen ji su fekkee ne bëggut a dem ca lañ miinoon jaadu na mu wax lu wuuteeg loolu balaa booba ne man kat ku ma takk rek may yóbbu sama appartement boobu kii nga xam ne dañ koo gënale ak i wuj jëm mu ne ndax day ñaan baat balaa ñaan baat de lim war a jëkk a xool mooy lan moo tax ñu koy gënale ndax moom ci comportement am la ndax ci jikkoom la ndax ci melokaanam la yooyu yépp da ko war a gëstu lu mu gis ne moom mii xam na ne moom la ko kee ëppale ba tax ñu bëgg koo gënale na fexe ba kooku bañ ko ëppalee ci loola su fekkee ne ci li doomu aadama mën a fàggu ci la bokk ndax kat bari na gënale guy am ñi di ko feeñal te fekk ñañ gënale daa am lu ñuy def loo xam ne bokkul ak li muy def moom mii su fekkee lu mu man la nag su boobaa càgganteem la na góorgóorlu ba kenn du ko gënale ala kulli xaal su fekkee ne mi ngi def lépp comme li ñëpp di def jàpp ma ne gënale googu dana war a mën a am wala su amee nag bu boobaa tooñ a ngi am nag su boobaa ku góor ki mi ngi tooñ su demee ba mën a tukkoo mu ñitam nag su ñaanee baat kenn du ko yedd ca loola waaye damay wax ne tas ab sëy dafa doon lu rëy loo xam ne bala caa àgg na fekk ñu jël seeni matukaay jéem liñ mën lépp na jéem a xool jéem a defar jéem a lijjantiwaat boppam jéem a waxtaan ak ñu ko ëpp expérience ci sëy ñu teg ko ci yoon ba mën a dellusiwaat tegu ci raay bi def noo xam ne kenn du ko gënale ak kenn waaw
ci wàllu ndaw laaj bi topp mooy ñi lay laaj ne ñaar ñi nga xam ne dañuy dencante suñu demee ba kenn ki yëg ne ki ci des daal ñu bëri maanaam day mooy yàlla mu ne ndax dana sañee ñaar baat ci loolu déggoo ni ndax mën naa wax jabar ji ngir loolu mooy daal yëg ne day def ngëmul yàlla ci wàllu jàll jàll lay def te ñaari laaj bi mooy mu ne lan lay laaj jigéen ñi nga xam ne xalaat woy juróom moom la gën a dégg ci xalaat yi borom këram mu ne boobu lan la koy laajee mu ne lan lay laajee ki nga xam ne daa leen ko mënatul ci soxnaam dara ci lañ war a seet ci wàllu sëy te nee na li ko sabab mooy ñaaw jikko koo xam ne daw si ñaaw na ko jikko loolu moom sabab loolu mu ne kooku lan la koy laajee dem na daal ba mënatul ci soxna si dara di jëfandikoo di jëfandikoo moom ci jikko yi ñaaw ba tax mënatul ko dara
alhamdulilah ki nga xam ne dafa ñaaw njort wala mu am firnde eh, ci kim nekkal moo xam soxnaam la wala borom këram la ne ak dëngam àgg na ci di def sudul noona ci wàllu njaaloo loola benn mu am ci firnde boo xam ne bu leer la boo xam ne ni ko sharia waxe noonu la demee muy teg na ca bëtam su boobaa mbir ma mbir mu jéggi dayo la mbir mu rëy la moo xam ne jaaduwul ku laab ku jub ku baax muy continuer di ànd ak koo xam ne moom loola mooy jikkoom wa xurrima dalika ala almuminin la sunu borom tabaraka wa taala wax zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik ki nga xam ne ku jigéen kuy njaaloo la sunu borom nee na ki koy mën a takk muy dagan wala muy doon lu jaadu sax la ñuy wax mooy ab njaalookat wala bokkaalekat ku góor kiy njaaloo it kam mën a takk muy njaalookat bu jigéen ak ku bokkaalekat bu jigéen wa xurrima dalika ala almuminin mooy jullit bi ci boppam dañoo araamal ci moom mu doon jigéeni jullit ju sell ju laab muy sëy ku góor koo xam ne njaalookat la wala ku góor ku sell ku laab muy sëy jigéen joo xam ne ab njaalookat la loolu moo tax saa bu ñu demee ba ba liaan am saa bu ñu demee ba ba njaaloo am wala ñu tuumaal ko ci njaaloo doom juddoo ca loolee sharia may la leen ñi def li ñuy tuddee liaan mooy ñu rëbbonte su ko defee sëy ba tas ba faw te dootuñu ànd moo tax loolu musiba la moo xam ne eh, noonu loolu la indi ci sëy waaye nag loolu lépp ay njort yu ñaaw ak téléphoné ne nit ak gis naa nangam ab ab ab SMS ci téléphone am ak gis naa message ci nangamam ak séen naa ko mu taxaw ak diw di wax yooyu yépp du ay firnde yooyu mën naa doon yoo xam ne da nga gis lu jaaduwut nga ne ko li nga def tey jaaduwut waxtaan ca ak moom ba mu bàyyi loolu waaye bu mu tax mukk nga ne tey njaaloo na te amuloo ca firnde ndax tuumaal nit ci njaalookat te amoo ca firnde bu fekkoon ne lislaam mooy àtte dañ lay woo nga ñëw ñu dóor la ay yar ci kanam nit ñi ndax li nga wax amoo ci dalil laaj bi xaw naa desee leer mooy kuy jiital xalaati waajuram ci xalaati borom këram xalaati jëkkëram ci xalaati wala xalaati baayam ci xalaati borom këram xalaat yi dama dul xam fu mu jëm ndax léeg-léeg xalaat génn nga xam ne day yeeyoo ñu jiital ko su fekkoon ne xalaat yi baayam daa doon xalaat yu koy soññi di ko digal mu jàpp ci alquran jàpp ci sunna def nangam jëkkër ji di ko digal leneen su boobaa daa war a jiital xalaati baay bi ci gàttal daal ki nga xam ne moo digle lu baax kooku xalaatam moo war a jiitu ki digle lu baax xalaatam moo war a jiitu suñ diglee ñoom ñëpp lu baax nag nga góorgóorlu def ñu def lépp suñ diglee lu bon nag bu ca topp benn du jëkkër ya du bàyyi loolu rek moo fe ne benn ñu bokk digle lu baax nga góorgóorlu ci la nga mën nga def ko ci ñaari xalaat yépp bokk nañ digle lu bon bu ci topp kenn kii digle lu baax kii digle lu bon ka digle lu baax topp ko moo tax yow góorgóorlu ba xam lu baax rek soo ko xamee ku la digal lu baax nga def ko ku la digal leneen bul ko def kii nga xam ne ñaawu jikko soxnaam moo tax mënalatu ko dara loola xëy na da ko bëggatul ci ci am gàttal ndax lu mel noonu loolu mën na koo mën na koo indi su fekkee ne soxna si ci jëmmi boppam moom xam na ne jikkoom wala melokaanam wala comportement moo tax borom kër bi lott na ci mbiram ci kaw loola te bëgg na sëy ba continuer moom moo war a soppi boppam ndax ñu mën a nekk su fekkee nag wóor na ko ne da ko bëggatul carrément nag moo tax mu lott ci moom kon bu mu tëyee doomi jàmbur jëru sax muy xaar mu di ko ñaan baat wala lenn waaye su fekkee wóor na ko ne moom bëggatu ko te bu ko tëyee fii ay lori kese la koy andil mu teel ko ko wax su fekkee ne munta muñ loola moom it mu daal di euh, sàkku ñu libéré ko mu dem yoonam loola mooy jaadu wallahu taala alam waaw laaj bi ko mooy lii loo xam ne ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax ci xaabara bu am solo bi laaj bi nag day laaj duwaaw listixaar ak ñaanu listixaar ak fan lañ koy defee ndax boo sujjóotee wala ginnaaw boo taaya ba jàng salaatu Ibrahim ba pare wala ginnaaw boo sëlmalee day def ñaan ñaareelu laaj bi mu ne waxambaane yi boo xam ne dafa nekk ci école di jàng waaye moom dafa bëgg jëfe diine ci solo yi lépp loo xam ne sharia da koy tere waaye école bi dafay jaxase góor ñi ak jigéen ñi mu ne kooku dafa bëgg laaj boo xam nan la nan la war a def moom day laaj boo xam nan la war a def beneen laaj bi mu ne lan ngay laajee li nga xam ne dafa yor ay soxna te yemalewu leen maanaam maandu ci seen diggante
alhamdulilah xam naa ñu mujjee ñett yooyu bari incha allah Euh, listixaara fan lay nekk borom xam-xam yi wax nañ ci sax nag waaye li gën a dëgër mooy bu sëlmalee am ñaan yi nga xam ne sharia daf ci orienté yëpp mooy nit ki ñaan gi bu koy def mooy bu jullee ñaari rakkaam ba sëlmal ba àggal mu ñaan ñaan googu foofu mooy place am kii jàng ci école boo xam ne ay góor ak i jigéen dafa faa jaxasoo su fekkee ne day jigéen ña dañuy nekk ca gannaaw góor ñi nekk ci kanam loola mën naa doon loo xam ne lu woyof la su fekkee dañuy jaxase nag jaxase goo xam ne góor day toog fii jigéen toog fii góor te nga xam ne nuñ toogee rek ci biir école bi baax na moom na góor góorlu fexe ba fa muy toog du dend ak ay jigéen ci ci biir école bi na wattandiku loolu kem kàttanam fattaqullaha mastataatum na nga ragal yàlla sa kem kàttan wattandiku ba jaxasoo googu nga mën caa mucc ci yow ngir nga mën a continuer sam njàng loolu mooy jaadu waaye du nu ubbee ci ne nit ki na bàyyi njàng ma wala na bàyyi école ba ci kaw ne ay jigéen nekk na ko comme ni ko yenn kuréel yi askanoo ci lislaam di ko waxe déedéet ndax xam-xam bi waris koo bàyyi dee sa war a jàng xam-xam su fekkee ne école ya noona lañ mel te amoo beneen école boo mën a dem bu melul noona jàngal xam-xam bi te wattandiku lor ja ca nekk ndax kat loola nekkul ca école ba dong waaye transport public bi boo duggee ci oto yi lu mel noonu nga fay fekk boo duggee ci leneen it lu mel noonu nga fay fekk boo demee ci bureau yi fekk fa lu mel noonu kon ku laan naan bàyyil sa école ngir ne ay jigéen dañ faa nekk mooy ki lay wax rek ne la bul duggati ci oto yi bul demati ci bureau yi bul dem nangam bul dem nangam te bu boobaa dund gu xat na ngay mujj di dund goo xam ne boo wutut fa ngay mujj mooy na ne li ñuy wax bokk xaraam mujj faf ay yat faf dal ci kaw nit ñi ndax ne dund gi dara baaxatu ci faf mbir yi demewul noonu xam-xam bi des ko war a fàggu continuer nag di de- di defar di defar di yeete di jàngale ñi xam ne lii nii la war a demee ba ba mbir ma di mën a laab nag rek ndax mbir yi noonu lay tëddee lenn lu nekk amul lenn loo xam ne daa jékki-jékki rek am dafa jékki-jékki di am ndànk ndànk di am ndànk ndànk ak jaxasoo ci biir yi daara xamuñu ko woon ñu dem ba mu yàgg ñu xam ko buy dañ itam dañ koy def ndànk ndànk di ko lijjanti ba mu dañ rek kon daal jàngale ak yeete ak xam ne li baaxut suñ demee ba ñëpp doon ay jullit ba noppi xam li lislaam santaane ak lim santaane wut su boobaa lam santaane wut di ko tere danañ ne ko kupp def li nga xam ne moom la lislaam santaane ki ñàkk a maandu nag ci digganteem ak ay soxnaam mi ngi ci mooy yàlla maanaam ci mooy yàlla ci la sax ndax la jiitu mooy warul woon a takkaat keneen borom bi deen man wa in xiftum alla taadilu fa waaxida su fekkee ragal ngeen ne waxul sax de wóor na la ne doo maandu de waaye daf ne su fekkee ragal nga ne doo maandu nee na yemal ci benn sikki sàkkaa nga fiit ngay nattable waa man mi ndax su ma takkoon keneen nag danaa leen mën a kii danaa mën mu ne bul takk waaye wóor na la ne da nga def li yàlla wax mooy maandu ci seen diggante mën ngaa takk boo amee kàttan ki takk nag ba noppi maanduwul kooku xotti na ndigalul yàlla lu jëkk loolu yi ne woon fa waaxida dañu woon yemal ci benn nga bañ caa yem kon kooku ak mooy yàlla boppam la goo xam ne bokkul ak mooy yàlla ñàkk maandu gi ci boppam ndax kooku yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki jéngoon ci diggante ay borom këram yowmal qiyaam buñ ko dekkalee genn wet gi day jéng maanaam du mën a jub loolu mandarga lay doon moo xam ne nit ña dañ ko cay xame waaye loolu bokku la mu bëggal mi nga xam ne mooy wàcc ci kawam xadis yu bare bare bari dafa ñëw ci bunt boobu di wattandikuloo loolu di wax la ca nekk ci ay bakkaar kon na ko nit ñi wattandiku maandu nag buñ ko waxee mooy ci li feeñ li nit ki man waaye maandu munta doon ci ba àgg ci diggante lay doxal diggante ñaari way dencante ca lal ba loola yàlla moo xam nu muy demee waaye daal fexeel ba ci aay moom moo aay ak ayam la bi nga jëndee jox kii dara xamal ne kële itam yeyoon na lu mel noonu sudul loo xam ne lu gaar la lu gaar mooy lan mooy kenn ki feebar na nga jëndal koy garab kenn du wax ne faaw nga jëndi garab jox ko ca des sa dara dalu ko ah loola lu gaar la waaye nag toog nga ba mu yàgg nga di leen xottil yéere xottilal ñëpp waxuñu ne it maandu gi mooy li nga xottil kii xottilal kee lu toll noonu kii mën naa doon njool moo xam ne tubaarkàlla la muy sol fukki meetar la kii doon koo xam ne juróomi meetar doy na ko waxuñu ne joxal ñëpp juróomi meetar su ko defee kële du xam nu mu koy def wala nga ne joxal ñëpp fukki meetar kii sol juróomam yeneen juróom yi ci des mu yore ko waaye kenn ku ne da nga koy solal lu yem ci moom loolu mooy maandu moo tax li ñu tudde égalité loolu lislaam xamu ko lislaam li mu xam mooy al adala maandu maandu te maandu mooy nga jox kenn ku ne ak xam yemale nag mooy mooy nga ñëpp nga jox leen lenn li loolu baaxul yemale moom baaxul kon defe naa ne mën nañoo taxawlu foofu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq di sant mbokk yi ak seen liggéey itam ci jàkka ji ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fi liggéey lépp ñu ngi koy yëg di xam ne ne li Cheikh Alioune Badara wax lu lu luñ bàyyi xel la moo di béréb bi suñu béréb la boo xam ne saa bu ñu fi soxlaa bu nekk danoo war a daal di dagg suñu yitte sax ñëw maanaam moo am priorité nag ci béréb yu baree baree bari ndax jàkk yi nga xam ne yàlla dogal na bañ leen di ubbi ñoo leen ubbi woon bañ leen di liggéey sax sooy bu mën a étape buñ toll bu nekk ñoo bokk toll ci ak ñi ko doon liggéey ba nañ ko ubbee ñu ñëw jiite ko ñu ubbee ko ci jàkk yooyu la bokk day nuroog jàkkay suñu mbokk yële jàkkay Ali ibn Abi Talib jële ca Grand Yoff ñoom itam seen naa ku may xool ku bokk foofa moom itam noonu la mel ci yan bokk ak ñoom di ko liggéey ba mu sotti ñu ubbi ko ca la bokk moo tax béréb yu mel noonu dañuy am priorité ci noonu ci saa boo xamee ne soxla nañ lu fa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq te defal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم